su ko ab jaam dee ñaan ba suñu boroom nangul ko ko dafay sant suñu boroom subhanahu wa ñaan suñu boroom dolli ko ndax moo ni la in shakartum la azidannakum kon ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala cant xam ni suñu boroom mi ñu bind moom xam na fi ñu tàmbalee mën ñun xam nañu fi ñu koy tàmbalee waaye fa cant ga di yem ñun xamuñu ko ndax li may wax toujours sama waa kër di ma reetaan dama naa leen man mënumaa fay yàlla te wallaahi mënumaa fay yàlla di wax dëgg yàlla di bëgg lool nag ci jataay bi am na solo lool ndax euh, kilifay jataay bi ñoo fi toog gannaaw bu ñu santee parents d'élèves yi ah ki nga xamante ni mooy suñu présidente national ndayu daara muy soxna astu Ba nekk jàmbaar lool ñu ndayu daara yépp au niveau national ñu tudde ko l'infatigable muy œuvre ci ndayu daara du ci sonn du ci tàyyi xale bii tari muy ajaaba moom moo ma ko indil yaayam lañu ñu connecté nii mu nga France nii ay sëru yaayam lañu yaayam dafa ñëw vacances ni ko ma ne dama bëgg ajaa dem daara waaye daal man xaw ma comme jigéen la dugal ko internat daal xawma ma ci ku ma ko yóbbu asu ba mii toog ne ko yóbbu ko ci koo xamante ne joxuma ko dinaa ko jox koo xamante ni mi ngi mel ni ci sama kaw lal la fanaan loolu confiance la boo xamante ni sànq yaayam dafa ma woo ci suba dafa woo bay woote bay tuur ay xéewal ma ne ko man musuma mënumaa gis kuy tuur ay xéewal ma coupé waaye confiance boobu dama koy wax parents d'élèves yi euh, Pape Tidiane euh, Babacar maa ngi leen di seedeloo Ahmadou Faye yàgg naa fekke ma koy seede euh, Mbaye Diop mii mooy suñu président départemental ci sëriñu daara yi Pape defe naa xëy na masque bee tax mais ñëpp gis nañ ko ci Malikia moom mooy def émission al islaam waaw waaw effectivement mu nekk koo xamante ni non seulement sama doom la sama rakk la waaye sama xarit la dañu am benn complicité bu ma am man ak moom Ahmadou Faye dootuma leen ko présenté Seyda Aïda Diité dootuma leen ko présenté keroog bi ndey sufi bu Pape Makhtar di tari fii moom mu njëkkat waxtaan def neen parce que daara ji moomuma ko moo ko moom li may wax ni ko li nga fóotal sama papa fóotaloo ko sa papa li nga fóotal toggal sama yaay toggaloo ko sa yaay moom yàlla daf ñu boole boole boo xamante ni yaakaar naa ni ba suñu boroom ne alastu bi rabbikum ruux ya doon wax bale ñun suñu ruux dañoo waxandoo ndax nit dina yëg nit fu ne waaye yëg ak nit ci bañ a tàqalikoo ay ñaan yàlla nañu bokk jëkkër te ni mu ko waxee sama papa ñu jàngal alxuraan ba ñu wattu ko waaye mu firil ñu ko waaye boo demee ca anaam benn ñaari diggante ñaari allahu allahu yajalu xaw ma nu ko naka la ayaa rusul fa te rusulullah bi allahu yajalu ba sam papa bi mu ñu koy firil mu jox ñu secret bi mi nit ñu alxuraan ba alxuraan daj benn place bi moo fi am ñaari allah yu dara doxul seen diggante lu ci nit ñaan yàlla dogu ci yàlla nangu ko ñu daal di jóg jàpp ba seetlu julli ñaari ràkk ubbee an am jàngandoo ba agsi foofa ñaan suñu borom yàlla nañ bokk jëkkër te booba amaguñu 15 ans parce que bëgguñu woon a tàqali ko mais yàlla toujours dama naan xale yi suñu borom li nga bëgg ni mu koy nangoo bu ko toppatoo ñun dañ doon a tàqali ko li ñu defa bokk dàq ñoo dàq bokk jëkkër yàllaa ñu boole lépp. ma ñëw Tiwaawan sëy si fi mu sëy si Tiwaawan di sëy ak sama càmmiñ ma dugg fonction publique di jàngale arab mu dugg fonction publique di jàngale arab ndeyu daara yi sosu ñu yëkkati ndeyu daara yi teg ko ci suñu loxo sëñ Abdou Aziz Al Amine dénk ñu ndeyu daara yi ñu ngi réunion ñu ngi dem ci cellules yi tout le temps kon ñun tàqalikoo bañ doon bañ loolu lañ doon ban bañ ñaan kon suñu ñaan nangu na lu koy dal dama koy yëg lu may dal daf koy yëg ay cheikh piir lañu kon daara ji moomuma ko moo ko moom am la heure bu lu mel ni amee mooy jiitu si waxtaan tabaarakallaahu gën a wax nit ñi lan mooy alxuraan kon bu asu jëlee doom wóoluma jóge mbuur ak ñaata daaraa nekk mbuur romb Thiès ñaata daaraa nekk Thiès mu indi ko jox ma ko bu ma ci yàlla defee lii lii damay wax alhamdulilahi rabbil alamin waaye sant ko sant ñilaan mi ko nangul waaye sant càmmiñam yi ak boroom kër bee ndax ñilaan jigéen la xëy na am na ci kàddu waaye waajur wu góor moo ëpp kàddu ci doom kon duudu nangu ñilaan nekk fi waaye duudu di ñëw visit bàjjan ba maamam di ñëw visite kon loolu dañ leen ciy sant vraiment soxna Astu jërëjëf ci taxawaay yëpp. beneen championne bi sama sët la Soda Diop mais maa ko jàngal daara toujours danaan man sant naa yàlla bi ki ma jàngal daara moo jàngal sama doom. Marème ba mee di yaayam Pape Khalifa Diop mii di nijaayam seen waajur wu góor dama amoon ak moom benn complicité boo xam ni Ahmadou fay mën na ma cee seede yàlla na yàlla dooli leeram te alxuraan ji sëtam bii jàng. yàlla na yàlla dotti leer yaag barke ya pa wallaahi lazim xam naa ni yëg na ko waaye mu dem mareem bàyyi ma xale yi bàyyi ma njaboot yi ñoom ñëpp sama kër lañ dëkk ñoom ñëpp maa leen yar ba kii mata dal indi ko ci daara ji wante bàyyeewuñ ma ko chaque premier week-end du mois parents yaa ngi ni dañuy ñëw visit ci seen doom heure bu ñu ñëwee xool seen doom nemmeeku seen doom encouragé seen doom xool la seen doom manqué ñu indil ko ko jaara mës sa manqué dara heure bu visite jotee sooda dina ñëw dina indi lam war indi dina indi saabu dina indi diw dina indi parfum dina encouragé jaara loolu nag wax dëgg yàlla li muy nekk nekk jigéen dinañ ko ci remercier ci taxawaay boobu ak yaayam ak nijaayam bi ko ci jàppale di remercier parents yëpp comme ni ma koy waxee parents yëpp ñu jàppale ndax bu parent yi indiwul woon seen doom damay ubbi internat bi duma gis kenn non seulement indi nañ seen njaboot mais bàyyee ñun bàyyee nañ ñu leen kenn du ci lijjanti dara am na ci ñoo xam ne sax dañuy toog deux mois bu ko defee maanaan leen ñëw leen ndax xale fu mu nekk boo dul ñëw day defee danga koo sànni mais na ñëw mu xam ne parent bi daf koo dénkaane mais sànniwu ko alhamdulilahi rabbil alamin Malick mais moo fi njëkk mokkal moom dafa wàcc papaam bàyyi ko fi mu mokkal muy premier élève bi mokkal tari Mansour si Ali imaamu zawiya bi moo ko moo ko mujjee taree bi mu paree mu ànd ak moom ñëw ni ma téyal naa xale bu nekk ba ci samay daara sama njaboot a ngi nee naa leen xale bi mokkal nee ni mosuma koo téye alhamdulilah yàlla na ko yàlla lafal cat tabaarakallah xale yi fi jaar dem yépp sa féetu bu Pape Makhtar ñoom ñëpp alhamdulilah kon ñi ngi sant yi ndax it bàyyiwuñ ñu daara ji de seen fay dañuy ñëw fay waaye dinañ indi ceeb dinañ indi suukar dinañ indi saabu dinañ indi lépp lu xale yi di soxla chocolat beurre te loolu ku koy def ci daara yaa ngi dimbali daara te mënoon nañ ñu suñu fay rek la ñuy fay yem ci te kon tamit li Ahmadou fay wax daara ji te wallaahi maa ngi koy seddaloo suñu borom bis bu ma demee ba mën koo jël en charge danaa ko def gratuitement yàllaa ngi may seede te bis bu ma ko mënee te defuma ko dinaa war yàlla te duma war yàlla sama dund li ci des billaahi dama ko jébbal suñu borom démb maa ngi seetaan suñu première conférence 2016 ci épi Sidi Ahmed Al Amin macha allah waxtaan bu am solo ma dugalaat ko ci panel bi ni leen na ko ñëpp déglu maak soxna ayda mu wax ci wax joo xamante ne mënu ko ñun li des ci suñu dund dañoo tudde suñu bopp xaadimatul quraan jébbal suñu bopp al quraan kon ñu ngi ñaan subhanahu wa di sàkku ñaan ci ñëpp nag ñu ñaanal mission bi yàlla ñu yàlla may ñu cheminer ko ànd koog moom ba suñuy sët di ko jël di sant ñëpp nag di ñaanal ñëpp nag vraiment di sant nag ñu nekk ci daara ji oustaz wax dëgg yàlla bi mu fi ñëwee yàggul ki sosoon ki commencé woon daara ji ku nekk xam na ne kuy liggéey ba mu yàgg bëgg ngaa dem defi sa yëfu bopp wax dëgg yàlla dañu signé woon contrat ma nag moom contrat ba jeex mu dem ma indi keneen avant muy dem sax indi naa ki ko war a wuutu ci jàmm ak salaam alhamdulilah moom it nag wax dëgg yàlla mu nekk ku jàmbaare góorgóorlu Seyda Awa Seyda Ndey Faatu ak Seyda ami moo yore externat bi Seyda ami kii doon def mouvement yi oustaz Alioune Diallo Mboro lay jóge deux fois la ñuy defal cours yi ci semaine bi mais ak yitte bu mat sëkk la ciy def fi mu ne dakaar la jóge ndax dafa am yeneen internat yu muy defal cours dakaar dakaar la jóge moo tax mu xaw naa ji mais tabaarakallah bi mu dugg see ci daara ji ak léegi xam nañ ni dugg sa ci daara ji tabaarakallah moom tamit ñu ngi koy ñaanal. ah di xaasal nag Fatima wax dëgg yàlla mënu la ñàkk li Ahmadou Faye wax rek lu ma ko jur jur tamit sëñ Mansour laa daan dégg mu ne baadooloo ngi yem ci luñ la defal nga yoor dox ni daa ko yayoo sant jëkkëram boroom këram Bamba Thiaw ndax ba ma koy jur Fatima nga Cees moom dafa mësal kii seede na ci depuis mu nekk lycée bi fii CM sax la ma Bamba Thiaw takk rek def ma yaay yaayam génn àdduna mu ñëw ni ma amatuma yaay mais am naa yaay yaay sama yaay daraam umpuma ba ni mu paree dem Chine jàngi léppam ba yàlla dogal digganteem ak Fatima mu ñëw jël Fatima mu ne Fatima man sama yaay dafa wét ca daara ja ñëwal nga dem ca daara ja nga wéttali ko jàppale ko ca daara ja la nga fa mën xale yu góor yi mënuñu ko fa di ñëw par weekend loolu mbaax la te këram la am Ouest Foire tabarka la macha allah am jànqam ak yëppam Pape Khalifa nga yëngal bopp xam na li ma wax mais mu gedd bonheur boobu moom ma Thiaw ñëw indil ma Fatima Fatima it wax dëgg yàlla nangu vraiment féete ma ci daara ji foo xam ne damay naan fa alxuraan lool ñu di ko ñaanal moom itam yal na yàlla guddal fanam te wéral cëram suñu waajur wi nga xam ne dafa wàcc liggéey ñu ci ko barki démb itam euh, tey jii la ñetti fan yi muy suñu papa ñoxo baay Diouf ñu ngi ñaan ci barke alxuraan suñu waajur yi dañoo tegaloo suñu ñeenti waajur yoo xam ne tubaarkàlla rek kenn ku ci ne fukki fan ak juróom ngeen rawante mu doon lu metti lii bu doon leneen lu dul alxuraan duñu taxaw ndax tey la ñetti fan la waaye nag alxuraan la ñu yaakaar te ci moom la ñuy ñaan te ña dem ci lañ leen di ñaanal moo tax ñu ñëw teew fii tey pour ñaanal leen ci barke bés bu màgg bi yàlla xare leen ajjana waaye Adja Ndeye Fatou di sant sama ñaari rakk yi nga xamante ne sama bàjjen moo leen jur muy xadi jóob ak Jatu ndax ñoom ñoo nekk France ñoo yóbbu ñi laan France jàppale ñi laan jàppale famille bi bëgg sama bàjjen ndax sama bàjjen moo leen jur waaye bu ñu teguloon sama bàjjen fen ñun duñ leen teg fen ndax ñun suñu bàjjen lañ am mooy suñu or mooy suñu jamaa suñu bàyyi dem bàyyi ñoog suñu bàjjen mu uuf ñu boot ñu rogganti ñu kon ñun ku tegul suñu bàjjen place rek ñun teguñu la place ma di leen ñaanal yàlla lu ñu mun ren yal na ñu mun déwén lu ko raw di ñaanal fii ñu uutu ñu laan yal na leen yàlla fay ndax lu ñu laan waroon a taxawee rek taxawee nañ ko yal na leen yàlla fay di ñaanal ñiy jàngale ci kër gi Fatima ñu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan ak wér fi nga uutu sa yaay ndax sa yaay sarjam dafa rëy macha allah buñ la toog ci daara ji nga wuutu ko fi yal na la yàlla wuutu ci sa njaboot wuutu la fépp yàlla boo am lenn lu la naqari ci sa àddina ci barke alxuraan yal na yàlla barkeel sa njaboot ba fii nga féete sa yaay yal na la fa sa njaboot féete nga fekke ko te tal ko di ñaanal jàngalekat yi ci kër gi yal na leen yàlla barkeel ndax alxuraan diis na loo xam ne buñ ko wàccee ci montagne mu seey nga fexe ba dugal ko ci dënni doomi jaambur kenn munu leen a fay yàlla rek moo leen mën a fay yal na leen yàlla fay yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla tawféexal leen suturaal leen kii nga xam ne nag moo doon tàggat xale yi léegi sant jàllo man de ëlbatiku naa balaa sant mais jox naa la sama tur sant tey moom jàllo rek soxna asu jàllo laay sant parce que lii moom ëppoon naa bañ a def neex na te it tegu na ci yoon tegu na ci lislaam macha allah itte ji ah man daal sant naa la te di leen ñaanal yàlla di ñaan parents d'élèves yëpp nag nañu gën a jàpp ci daara ji ndax daara ji suñu daara la te ñii nga xamante ne ñooy promotion bu njëkk bii ñoom ñooy indi ñeneen doon magi daara ji ñoom ñii kon ñun ñii yàlla baaxee ba suñu njaboot bokk ci promotion bu njëkk nañu jàpp daara ji def ko suñu kër lu ñu am nañ ko def ci daara ji lu ñu mën nañ ko def ci daara ji nañuy daje na ñuy cotiser dama sas nag parents yi ndax dafa am ay pavé yu ñu war a def ci kër gi te pavé yi ñun ñoo ko war a taxawee gannaaw bu ma ko sasee sama ndey daara yi nga xam ne ñoo nekk ci région de de de Thiès rawatina département Thiès man maa leen ko sas Adja faatu sasu leen ko ndax gis ngeen li mu liggéey ci gannaaw defal xale yu góor yi ci gannaaw fu ñu féete teqale ko ak gone yu jigéen ñi. def ko ba ni ko lislaam digalee mu def ko kon ñun lépp lu fi ne ñoo ko war a def loolu maa ngi leen ci sas kenn ku ci ne incha allahu dinañ ci waxtaan ñu seet naka lañ koy defaree ba lu ne ci daara ji ñun ñoo ko war a def. ndax liñ ñu defal ci suñu doom mënuñu ko ci suñu doom taxawu kat yi di leen jàppale daf fay suñu warteef ndax fayuñu leen fayuñu leen de ndax ku ne xam na ne ndékki rek weer ci xale ak yu guddeem dara la waxatuma añ ba waxatuma reer ba waxatuma fa muy fanaan waxatuma ndox ma waxatuma courant ba fayuñu Adja Ndeye Fatou li ñuy defal may la fayu wooñu kon ñu lay ñaanal yàlla jàmm di wax ne nag ànd ak sama ndey daara xombol ñu di ko wax ajaa Juma Ndiaye mu nga nee toog mu ànd ak ki nga xamante ne mooy chargé des opérations mooy dem ci daara ji ñu di ko wax Marème Jonn ànd ak suñu doom maam Batoor Gueye di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan lii yàlla bu mu dakk ñi fi ne na ñu mokkal te na ñu dund na ñu barkeel yal nañu seen muuri seen muuri réew di seen muuri njaboot di sant ñi nga xamante ne nag ñooy média bi ndax lu fi xew ñoo ko mën a siiwal ba ñëpp xam ko di Ndox TV ñu leen di ñaanal yàlla yal na jëm ca kaw ca kanam di ñaan yàlla daara ji yal na mel ni sooroor bii ci Tiwaawoon ci barke maam Aj si yal na barkeel ni borom dëkk bi barkeele asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. shaytaani daanaka kàddu gi moom mënoon na ñàkk. sama jëmmi teewaay rek pour wane ñi daaray Tiwaawan yëpp teew nañ loolu rek laa ci jublu woon waaye di jiital rek nuyoo seydaa di suñu lépp di suñu wayjur di suñu sëriñ daara di suñu mago daara di suñu tantay daara ba pare aussi nekk koo xam ni kuy taxawu sëriñ daara yi la ñu lay nuyu bu baax di nuyu soxna Assu moom it présidente ci taxawaayam ci daara ak ci département bi ak ci niveau national yëpp euh, di nuyu sëñ Ahmed bu baax a baax di nuyu Sal Tidiane bu baax ci ni mu leerale message bi mu joxe ci xale yi ak ci parent d'élèves yi surtout sax ci parent d'élèves bi ñu teewlu ko bàyyi ko xel di nuyu aussi parents d'élèves yi di nuyu mboolem invité yu fi nekk di weex na rek Seyda suñu teewaay fii dafa fekk ni amul lenn lu góor ñi di def fii ci wàllu musaabaxa wala ci ay musaaharaat te yéen teewu leen moo tax bi ma ko waxee maa ngi préparé pour dem daara ja fa jóge it gis nga daan naa jubal si fii euh, parce bu kenn ci waa daara ci góor ñi teewul loolu du jaadu parce que gis naa saa yu ñu organiser benn musaabaxa yéen yéen a koy defar ci côté yëpp kon boo xewlee lu mel nii war nañ fi teew di la encourager bu baax a baax parce que daara yombul te daara dafa ñagas ñagas boobu mu ñagas nag ah il faut yow nga am muñ il faut nga am courage il faut nga am lu tax nga toog ca daara ja te loolu yàlla dong la la du leneen yàlla jooju nga tudd fii sànq ni da nga bëgg li la dese nga liggéeyal ko sa borom am nañ ci yaakaar parce que xam nañ sa détermination xam nañ aussi sa pas-pas bi nga jox daara kon loolu ñun dañ la ci encouragé suñu ñëw fii sax loolu ci la bokk pour gën la encouragé dëgëral la dooleel la nekk ci sa côté pour wan ni la fi nga nekk ñun ñu nga foofu bu ñëpp wuute woon it man moom mënuma bañ <laughs> mënuma wuute waaw kon parce que des fois dama lay poñe nga nga nga teew kon yow bu dara xewee ma it il faut ma jéem a rek teew ci loolu kon ci kàddu waa daara yëpp sëriñ daara yëpp yu département bi nag ma rek yu commune Tivaouane mais yu département Tivaouane yëpp ñu ngi lay ndokkeel di la ñaanal yàlla yal na daara ji gën a yokk yal na yàlla yal na yàlla def daare ji sakkan te lu sakkan mooy lu barkeel yal na fi yàlla sotti barke yàlla na fi yàlla def aussi xale yi bokk ci champion yi te am nañ ci yaakaar parce que liñ fi dégg buñ ko continuer gën ko encadrer rek incha allah danañ bokk ci ñi am ndam yi parce que tamit wax dëgg yàlla alxuraan fi mu tollu tey sore na lool tollootul rek ci jàng xafs kese tollootul rek ci jàng warsh kese mais gars yi léegi ñu ngi jàng xiraat yi yemuñu ci rek ci loolu mais ñu ngi jàng di booleek tarix yi jël benn riwaaya boole kook ñaari tariixa wala ñetti tariixa di ko jàng nga xam ni ku la dégg dina xam ni xafs kese ngay jàng mais xafs bi yaa ngi koy jàng ci ñaari yoon foofu la alxuraan tollu ñun ñiy jàngale nag ñu nit foofu la ñu war a toll fexe ba niveau bi yéeg fa ñu ko mag ñi joxe woon ba ñu téye ko ñun ñu fexe àggale ko parce que judduñu dañoo juddu fekk alxuraan mag ñi yoroon ko doon am nuñ koy jàngee téyal ñu ko ba mu agsi ci suñuy loxo bu agsee ci suñuy loxo nag warta réer warta des ginnaaw waruñu ko ñun waruñu cee des ginnaaw moom du des ginnaaw mais ñun waruñu cee des ginnaaw kon war nañ fexe ba lépp lu mu laaj ñu taxawee ko kon loolu rek laa ci doon dolli wasalaamu aleykum wa